mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi baccalauréat 2017 l'enquête baa ngay wéy bu dee gone yi nga xamante ni ñoom ñoo doon euh, defee examen bi fële ca Immaculée Conception dinañ tabu ji série yi nga xamante ni daal moom mooy mathématique bi ndax épreuve bi koroog talaata dañ ko deful li ko waraloon rek mooy ñàkk ay xibaar ci wàllu woowu jëwriñ ji dénk wàllu njàng meek euh, njàng mu ko mi di Mary Teuw Niane moom nag nee na ñoom dinañ constitué wu partie civile daal porte plainte mi ko xamle suñu naataango média jafe-jafe am ci parti bi di Pastef te Ousmane Sonko jiite ko ka nekkoon ca bopp ca Ziguinchor ne day tokki tekki ndombay tànkam li ko waral lekk mooy dafa jàpp ni Sonko dafa jiital njabootam ci parti bi bàyyi leen ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy militant ya ca jamono jooju nag ñu wax rek ba léegi ci projet de loi bi nga xamante ni moom moo modifié article L78 bu code électoral démb nag la ko député yi daal di voté opposition bi ñaawlu ko na dañ leen saisir conseil constitution institutionnel ñàkk déggoo boobu nag dinañ ko jàngat ak sunu invité di professeur Mamadou Alioune Diallo moom mi ngi jàngale droit constitutionnel ca faculté des sciences juridiques ak politique bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca Paris it danañ fa dem quartier bu naan Chapelle nekk ca dix-huitième arrondissement foofa nag lu toll ci ñaari junni migrant daneen fa jëlee waa alkaati ñoom ñoo def lu ni mel ca ñooñ nag bokk na ci ab doomu sénégalais bu fekk baax kilifa yi daal di koy dimbali ba mu mun a ñibbisi fii ci Sénégal am na yeneen doomu Afrique yu ci bokk ak ñu fekk baax it ca Asie ñoom it daal police dafa njëkkandikoo doole rek ngir jële leen ca diwaan boobu di ci ànd it ak sunu naataango Ibrahima Camara mbokk yi su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaaru benn waxtu ñu tàmbali kook mbiram baccalauréat ginnaaw cool fi bi nag l'enquête ba mu ngay wéy waa section recherche bu gendarmerie ñoom ñoo ko yor ña ngay wéy di déglu rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ca office di bac ak machine yi fa nekkoon it ña ngi koy càmbal ca booba léegi daal gone yi nekkoon ca immaculée conception ñoom ñi nga xamante ni doonoo raté woon épreuve mathématique yi ñoom it dinañ ko dabu ji tey ji ci ngoon buñ sukkandikoo ci xibaar jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi ko mi di Mary Teuw Niane daal addu ci micro sunu naataango yu rajo Futur Média xam ne ni daal ñoom daal dinañ rek constitué wu partie civile maanaam porte plainte ala xam ngir ñu xam fuite yu ci kan la jaar ba mën rek lëmbe réew mi ak baccalauréat bi dinañ ci dellusiwaat. ñu wax ci dundinu askan wi dem fa fële ca Jaksaaw Bambilor nekk rek ca département bu Tëngéej askan wa ñoom ñoo génnoon di ñaaw rek ñàkkum ndox courant ak ay tali ñoom daal jàpp na ni ci réew mi lan bokk sàkku ci kilifa yi it ñu def seen kéemtalaay kàttan ba ni ni def rek ba seen dund mën a mucc ayib ñu def ko ñu ànd ci ak Ousseynou Thiam Bira Diagne. nekk fii ci sud commune bu Bambilor lii di Jaksaaw nag amul ndox amul courant jote fa nag doon na lu jafe ci askan wa fa yeewoo cim ndaje bu ñu am nag ñoom ñuy ñaawlu lu ni mel. déggoo li ma la wax man xoolal sama bijaaw yi xoolal sama bopp bi. ma màgget bi may ñëw fii ba xam fii laa juddoo te xoolal màgget naa gisuma courant gisuma ndox dañu ñaxtu wax ba bëgg a dee. nañu dañ nañu wallu nekk def ñu war a wallu fi mu nekk parce que fii yeewoo mot na junni nit. dëkk bu mag la presque Jaksaaw ak Bambilor léegi su ma yeboo ma ne benn ki benn dëkk la yéen suñuy déggante ak Bambilor yéen jaar ngeen ci waay googu foofu bu demee bu nawet bi baree ndox jigéen ñi dañuy wëri ku jaar foofu ndox mi da lay yóbbu amul pom amul dara. kon askanu Jaksaaw ne autorité yi nga xam ne ni ñoom ñoow féete ca diwaan ba nag dimbaliwuñ leen benn yoon jëm ci seen jafe-jafe yooyu. ñëpp xam nañu ñetti doomu pend naar yi ñoo fi ne. muy Omar Gueye Ndiagne Diop ak Modou Sall amul si kenn si ñoom ko am njëriñ warante rek lañ fi nekkee ñu xeex pour seen intérêt waaw ñun ñooñu dañoo si ñoom bëggatuñu si ñoom lenn li ñu bëgg mooy Omar Omar Youm le directeur cabinet président Macky ñëw jagsaaw xool lan moo fi xew sinon nag ñun après ñun dinañ jël suñu responsabilité si élection yi ñëw. woowu askan mer ba futt nag ne boo moytul sax duñu ñu seen loxo ci jogante électorale yi ñuy waajal bu fekkee rek ñii di autorités yi ñi ngi woy di leen tànxam ba léegi. weneen askan na ngi nii wu ñoom it ñoom ñooy waa Bassasou nekk ca région bu Sédhiou rawatina nag euh, commune bi nga xamante ni moom moo nekk ca diwaanu Tanaaf ñoom ñi ngi sàkku rek ñoom it ñu indi leen ndox ak courant te tamit tali bi dox ci diggante diwaan ba ak Tanaaf jëm ca Guinée Bissau ñu daal leen koy defaral ndax ñàkkum courant moom tax na lépp lu ñu jëfandikoo ciw ñam day nëpp looloo tax rek ñu bëgg it ñu indi ci saafara Bakary Konté Sala Samb population nekk ci bisaasu santu bisaasu duuma ñoom nag ñoo wàcc si mbedd yi wane seen nakar lu ñu bëgg courant wante tamit defar yoon bu jógee Taanaf bisaasu ba jiitaat yi si Guinée Bissau ak yoon bu jógee Mankolikunda ba Jamaay ci Guinée Bissau yoon mooy suñu problème am nañ ay marchandises am nañu ay mango am nañ am nañ ay darkase mais une fois bu ñu amee ces marchandises amuñu possibilité pour ñu ko mën a envoyer Talla que foofu mooy presque suñu lieu économique donc loolu mooy suñu problème de deux amuñu courant aussi courant bu ñu am panneau solaire la panneau solaire boobu mënoo kaa am à trois heures de temps même courant bi 19 heures lay ñëw une fois 21 heures courant bi coupé e li ci gën a métti encore à partir de la fin du mois gars yi taxaw ngi ne la 5000 francs te 5000 francs ngay fay amul facture amul dara nga consommé nga bañ a consommé weer bi dee rek da ngay fay 5000 francs ñun loolu loolu moo ñu métti amuñu yoon de un amuñu koo xamante ne mooy courant courant bi ñu am courant bi c'est des panneaux solaires panneaux solaires xamante ne 19 heures nga am courant avant 20 heures bi courant bi dem na. coopération allemande Enda Caritas ñoom nag ñoo amal fii ay ouvrage réalisation yooyu population yi ne dara baaxu si. première plus yi commencé nañu daanaka ñaar ou bien ñett yi moo ñëw yoon bi commencé di yàqu encore pour ñun tant que amuñu intervention ou bien amuñu finition finition bu normal bon dinañu delloo encore ci ñu li ñu nekkoon daaw encore. am na ouvrage am na ouvrage mais ouvrage boobu gars dañu dañu ñëw presque saboté parce que ouvrage boobu dañ ko commencé mais égali wuñu ko te li ñu li ñu ko def aussi dara baaxu si parce que lii bu taw yi ñëwee rek. kenn kenn fi ne jaar kenn du fi mën a jaar moom loolu mooy suñu problème te encore boo xoolee yoon bu jógee Mankoulikounda dem ba beneen côté mooy côté côté Jamaay foofu tam laalaguñu ko sax. Bisaasu nag bu mu amalee marche bi dëkk yëpp yoo xamante ne ñu ngi ci frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau ñoom nag ñi ne dinañ wàcc si mbedd yi wane seen nakar pour nag yoon boobule ñu mun ko defar suñ mu gën a gaawee wante tamit daal di indi courant ci dëkk yëpp nekk ci frontière bi. ñu dem ca kaskas lu toll ci fukk ak benn dëkk yu nekk ca Île à Morphil ñoom ñoo daja rek ngir samp kuréel li ko waral mooy intérêt dëkk ba ñu gën ko sàmm sàkku na nit l'hôpital bi nga xamante ni ñu ngi koy tabax depuis 2001 ñu daal di koy eggali ndax lañ ca def ci koppar toll na ci benn milliard ci suun ay koppar nee na nit diwaan yo danoo làqatu trop laaj na ñu tabaxal leen ay tali ngir dem baak dikk ba gën a mën a mucc ayib ñàkkum xëyum ndaw it wax nañ ci Ousseynou Diop Habib Seck fii ci Kaskas nekk ci île Amorphile fukk ak benn ci ay village bokk ci dëkk yi lay di tungeel Barangol Kaskas ak Sarsuke ñoo jug taxaw benn mouvement boo xamante ni ñu ngi koy duppee mouvement pour l'émergence et la défense des intérêts de l'île Amorphile yitte bi doon jafe-jafe yi nga xamante ni gox bi moom lay dund ñu daal ciy indi saafara bokk na ci yooyee jafe-jafe hôpital bi nga xamante ni ci atum 2001 ba léegi lañ ko taxawal waaye hôpital bi kenn mënagu fa dugg ñu faj la askan wi nag nii dañu bëgg ñu ubbi ndax dem ba dikk bi dafa metti parce que boo xoolee côté santé bi dafa am problème parce que suñu hôpital baa ngi nii di nelaw booba tey ubbeegul hôpital yu hôpital yu mu àndaloon ñu kii leen boobu ba tey hôpital yi presque yooyu yëpp ubbi ko nañ ba mu des bii suñu sañoon nag vraiment dañ koy ubbi ndaxte fii ñi ñu nekk gox bi nga xamante ne dafa xaw metti lool dafa xaw doy waaru dugg bi dafa jafe génne bi dafa jafe. xale yi fokk ñu faj leen boo joxee xale yi lu ñu jàngee fokk ñu faj tamit na gëstu xale yi xale yu góor yi xale yu jigéen yi ci ginnaawam la ñu ne. kas-kas la fa askan wi di gën a nemmeeku mooy njàngale ñu ci bare ci ñi nga xamante ni ñooy xale yi du ñu mën def njàng mu kawe mi tax ñoom ñuy ñaan wallu état bi. boo demee ba université njàng mi dafa xaw a métti imaginal Dakar ba kas-kas tu fais plus de six cent kilomètres say parents fii lañ nekk nekk ay doomu baykat. nga war a naan nga taxaw fee nga ne dangay def ay longue études kooku bu demee benn instant dootoo mën a ci lan ngay mën a def rek da ngay jàdd. beneen ci doléance yoo xamante ni askan wi yëkkati nañ ko bokk ci ISEP yi ñuy amal ci diwaanu Sénégal ñoom xale yi nga xamante ni ñooy jàng nag nee nañu naa leen état bi gestu ngir ñu mën ko amal ci bërëb yi nga xamante ni ñoo gën a sore ci Sénégal. nag vraiment état bi xool yeneen euh, ay ISEP yi ñu créé yi ñu créé ko dans l'île à Morphil léegi ñu ngi étendre ay ISEP am na ay cinq ISEP yi nga xam ne ñu ngi fii si Sénégal Ila Morphil dafa bokk si war nañ ci mën a ubbi ISEP. mouvement bi nag ñi ko sos ñu ngi bokk ci APR nee na ñu état bi naam mi ngi def ay jéego rawatina ci wàllu yoon yi waaye bëgg nañu mu gën a baral loxoom te itam jàppale leen ci seen nekkin. ñu wax ci wàllu politique parti bi di Pastef Ousmane Sonko jiite ko tas na ca Ziguinchor ñaka jiite ñu ci bëri nag gedd nañ toxu ji dem ca APR li ni tuumaal njiital parti bi di Sonko moom mooy rek njabootam la jiital ci doxalinu parti bi ñaawlu nañ ko ñu déglu ci Doudou Diémé moom moo nekkoon coordonnateur Pastef ca Ziguinchor ci micro Boubacar Diassi Lamine Mandia. Ousmane Sonko dafa doon suñu nga xam ne ñun ñoo door euh, depuis le départ. sos parti bi fii Ziguinchor mu am confiance ci ñun ñu ànd ak moom ci loolu ci moom ordam neenu il faut ñu yaatal ba tax na ñun ñu ne daal ah nañ jëm a convoquer réunion pour yaatal mais ci réunion boobu sëram bokk ci renouvellement loon am instant yooyu Ousmane Sonko cautionné ni que sëram ba militante la comme ñëpp parce que jot nañu ko wax ah, man maa ko jox man daa mu dugg ci parti bi liggéey comme ñëpp kon loolu bu ko demee ba wax ko te moom mu koy ŋàññi ñenn ñi foog naa ni ah sa waay wàccoo ak moom li nga xam ne moom lay woote donc moom lañ gis ba tax na tey kenn ku nekk ci ñun war nga mën a xoolaat sa bopp donc boo demee gis loolu ki nga xam ne dañ ko woote ba pare tey tollu fenn fi nga xam ne yow ah, yaa ngi def li nga xam ne moom ngay ŋàññi ñeen ni ah c'est vraiment regrettable te loolu lañ gis ci moom donc bu loolu amee daf ñu teggi fële ñun ñi nga xam ne ci coordination daf ñu mujj négliger complètement y plus de communication ñun élection législative yi nag euh, léegi leer na ni électeur bi su ko neexee bu duggee ci bureau de vote bi ngir voté rek euh, mën naa tànn juróomi bulletin au lieu muy tànn ñeent fukk ak juróom-ñaar démb la député yi daal di voté ci majorité projet de loi bi modifié article L 78 bu code électoral loolu nag euh, ku jege ñaawlu na ko trop ne danañ saisir conseil constitutionnel ngir mu daal di neenal bi projet de loi bi nga xamante ne gouvernement bi moo ko yóbbu woon démb ci assemblée nationale ki ko doon défendre mooy jëwriñ ji dénk biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo ñu siwaat si ak Mame Biram Diouf Modou Diop. projet de loi bi jàll article L78 code électoral ñu yeesal ko fanweeri fan ci weeru sulet gi di ñëw kon kay dem di voté lu mu neew dina jël juróomi euh, bulletin ci euh, ñeent fukk ak juróom-ñaari liste ya nga xam ne ni ñoo nekk euh, ca bureau de vote yi. lii doon lu ministre bi di Abdoulaye Daouda jàlloo doon xaar. mbir mi moom euh, jafewul wax dëgg yàlla parce que peut-être dañu bëgg waxtaan bu bëre rek waaye amul lenn li nga xam ne indi nañ si coppite buy gàllankoor élection bi xalaat nañu ne. ñëpp soo demee ba jël ay juróomi bulletin euh, pour nga tànn si benn ba léegi vote bi am na secret. lu jëm ci secret de vote bi nag dañ kaa violé te sax démocratie Sénégal lii day tax mu dellu gannaaw ak it ñàkk sàmmante la nga xam mooy euh, protocole additionnel bu CEDEAO ñi fete ci kujji gi ku ci mel ni moom Oumar Sarr Mamadou Diop Decroix Aïda Mbodj Mamadou Lamine jàlloo jot ko faa yëkkati. yaakaaruñu woon ne dinañ toll foo xamante ne dinañ dellu ginnaaw ci dialogue dinañ dellu ginnaaw ci euh, démocratie donc loolu ñu ngi koy ñaawlu. waaye soo demee bay tànn euh, di di jël ak di bañ a jël secret vote bi da nga koy xaawi. lu jëm ci fichier bi nag jëriñ gi mu ngi dalal xel yi. aujourd'hui tey ci fichier bi nit ñi nga xam ni ñoo ci inscrire toll nañ ci 6 millions 222 mille 515 mu tëddee nii. cinq millions neuf cent cinquante quatre mille fii ci biir réew mi ci bitim réew nag ñu toll ci deux cent soixante huit mille cent cinquante et un mille. On a rappelé effectivement que c'est un chiffre qui national bu PDS di Oumar moom jàpp ni chiffres yi ñuy joxe kat dara leeru ci wane ñàkk àndam. waaye man damaa jaaxle jëriñ gi yàggul dara waxoon na ni nit ñi inscrire toll nañ ci million millions 500 mille tey muy ñëw di wax ñu ngi toll ci lu ëpp 6 millions 200. xanaa kon ëllëg danañ ñu ngi toll ci set million ngir nag loi bi ñu bañ kaa jëfee ku jégi dina am ab recours goo xam dina ko dugal ci conseil constitutionnel député El Hadj Diouf jàpp ni xeex bi sax ku jégi dakaa ñàkk ba pare. recours bi daal bu ko jëlee ngi def ko rek waaye xam nañ ni na woon far fa woon rek conseil bi moom ñoo ko fa deg ña leen fa taaj comme Sénat lu jël sant rek la def. ñu ëpp ci député yi ànd ci loi bi ñu nga xam ni nag ñu ngi doon xaar ñu dàq sax voté député yi mel ni kon seen yaakaar tas na mënuñu kon lu dul def ak ndogal gi ñu jël. ginnaaw loolu nag am na gan ci plateau bi di professeur Mamadou Alioune Diallo moom mi ngi jàngale rek euh, mbirom droit constitutionnel ci daara ju kawe ji faculté des sciences juridiques ak politique bu université Cheikh Anta bu Dakar professeur ñoo ko seetaanoo débat yi démb ba léegi mi ngi doon am finalement adopté nañ li nga xamante ni mooy projet de loi bi modifié article L 78 bu code électoral coow li déjà noo ko jàngatee. waa coow li maa ngi lay jaajëfal d'abord ci invité bi mu invité ci sa bi. coow yi ña lu ñàkk am parce que xam nga euh, li li ko lal mooy benn problème boo xam ne bii dafa maanaam dafay jàmmaloo ku jóge ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi mm-hmm. euh, également euh, maanaam coow la parce que dafa am benn charte boo xam ne bi dafa nekk ci suñu charte bi nga xam ne bii moom mooy war a doxal jongante yi moom maanaam élection yi te charte bi dañu waxoon ne euh, képp koo xam ne kii da ngay wote bu la neexee booy ñëw ci wotukaay bi da ngay ñëw da ngay jël benn bulletin de benn enveloppe jël bulletin de vote yëpp yoo xam ne képp candidat bépp candidat wala benn liste de candidat bu fi nekk da nga ko war a jël xobam comme ça nga dugg ci man gàcc gi comme ça ensuite nga ñëw nga tànn ki la neex nga ñëw duggal ci enveloppe hmm. loolu tax ñu def ko parce que dafa dañu bëggoon maanaam képp koo xam ne ki da ngay vote ci des bañ a xam li kan nga léegi bu fekkee nag léegi dañu bëgg a changer mbir moomu maanaam xam nga ne kujj politique kujj gi moom normalement du leen war a du leen war a arranger euh, également euh, euh, parti au pouvoir mën nañu wax ne loolu mën na ko arranger parce que bu fekkee moom fu mu nekk nii dafa nekk loo xam ne ci njàqare problème mën na am. Mm-hmm. mais ci loolu tamit loi nga wax mais bu fekkante ne ñoom acteurs yi daje nañ seen biir. Mm-hmm. ngir waxtaan te Sénat bi yombaloon ko. est-ce que mm-hmm. bu amee consensus. loi boobu comme li ñu ko defee nii yoon wi maanaam modifier ko du jaadu. waaw xam nga man mën nañ ko déggee noonu déggin la loolu déggin la parce que en réalité boo bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu déggoo déggoo dafay dafay dafay dafay ñaari nit la. Mhm. koo xam ne kii dafa xëcc jëm à droite kii xëcc jëm à mais bu fekkee am na ci ñoo xam ne benn pàcc bi dafa dafa lànk déjà dégg mënut am. man li ma sama xel li ma mooy mooy dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo gën a bëri léegi dañu mën a imposer seen doole. mooy majorité waaw parce que loolu la wax sax mi ngi ni ministre de l' wax na ko démb ci kanam député yi 47 liste la ñoo war jongante. Ah mais ci waxtaan yi Sénat woote woon 44 ñoo fa nekkoon mais ci 44 yi 34 yi maanaam fanweer yeeg ñeent nee ñoom ànd nañ ci ñu soppi projet de loi bi protocole CEDEAO dafa wax ne euh, bu ñu tollee bu bu bu bu desee lu lu yées euh, juróom-benn juróom-benn weer kenn mun a soppi benn charte boo xam ne moom mooy doxal affaire élection mm-hmm. mais dafa ne bu fekkee dañu nekk dans situation d'urgence

Sénégal euh, bu ñu nee par exemple 34 euh, mën na nekk 34 ñi nga xam ne duñ posé wuñu posé wuñu 20 maanaam ñi ci des maanaam mettons les les 15. mu ne nag ñoo xam ne ñu am doole lañ. loolu loolu lu ñu war a sàmm la dañu war a sàmmante ak lépp loo xam ne lii normalement mooy doxalu réew mi. Mhm. parce que boo xoolee charte bi gën a kaw ci kaw réew mi muy constitution. article 3 ak article 4 dañoo wax ne. Mhm. Euh, le maanaam le secret du vote le secret du vote le vote il est universel il est indépendant il est secret secret mooy lan mooy képp koo xam ne kii nekkoo di vote waroo xam ma sàmba wala ma dem nan la voté loolu moo tax ñu créé mbañ gàcc loolu moo tax ñu ne képp koo xam ne ñëw a moom la neex mu votel ko loolu aussi lu jar a leeral la lu jar leeral parce que li tax ma ma ma ma convoqué constitution dafa nekk loo xam ne moo féete kaw bépp sart constitution bi dafa am benn benn tërëlin boobu wax ne euh, maanaam le passage à l'isoloir est obligatoire loolu lan la wund moo wund ne que yow amoo sañ-sañ ne bu ma neexee def li wala bu ma neex def la li léegi dañu la ko obligé lu tax ñu obligé la ko parce que dañu bëggul kenn koo xam ne kii mën a nekk ci kanam ci gannaaw mën laa influencé mhm. léegi nag léegi bu ñu jox bu ñu nekk ku nekk ci sa coobare loolu neex na noonu ngay defee mhm. loolu li impôt obligation bi constitution bi def ak loi bi dañu xaw a safaan dañu woon beneen bi mooy gis nañ ko sànq sax ci li nga xamante moom démb am na ay député yoo xamante ni defoon nañ ko muy ay motion préjudicielle ci ci débat parce que ku mel ne ay maître El Hadj Diouf ak Mamadou Lamine Diallo tekki ñoom dañ ne Sénat loolu lañ gën a maître du woo ay parti pour ñu trouver consensus mais superviser élection yi. Hmm. loolu. waaw normalement boo ko jàngatee normalement xam nga maître lii Sénat def naam parce Sénat liñ ko li gàcc ci ndoddam mooy yow yaa war a superviser da war a contrôler élection yi mais war a nekk koo xam ne ki mais nag du point de vue droit sax tout court point de vue formel effectivement mën nañu ko ngaañ mais sama xalaat mooy na man ma xalaat ne par exemple fen buy defar moo gën sax par exemple dëgg buy yàq. Mhm. donc ici ñële même bu fekkee du seen rôle mën nañu ko pardonner pour ñu doxalee nu ñu ko doxalee. alors beneen bi moom mooy saisir nu conseil constitutionnel. Mhm. d'habitude euh, jàpp nga ni moom am na compétence pour euh, li nga xamante ni moom mooy lii mu càmbar ko. waaw xam nga problème bi lii la parce que dafa am mooy charte sart yooyu ma la limal sànq. Mhm. article 3 la constitution dafa ne le le le le le vote il est indépendant il est secret. secret boobu boo boo jàngatee fu mu nekk nii loi bi ñu voté tey dafay xaw a safaanoo ak euh, article 3 de la constitution. beneen article dafa xam ne euh, les partis et les coalitions de partis concourent à l'expression du suffrage ça signifie bépp parti politique am nga sañ-sañ maintenant ñëw def di di compétition ci suffrage léegi bu ñu wootee loi bu mel noonu naan nag population bi bu la neexee jëlal kii bu la neexee jëlal kële également dafa xaw a bëgguma influencer. les les sept les sept sages mais laaj bi rek. maanaam bu ñu ko am na waruñu wax ne par exemple je suis pas compétent pour connaître cette affaire là. Hmm. te wa pas moi le juge du mais ama qualité de juriste. bu ma neexee ne leen am na benn benn benn article boo xam ne bii jalgati na vraiment constitution bi. Mhm. alors beneen bi mooy euh, gis nañ ko quand même Sénégal mi ngi bëgg yàgg boo xoolee depuis code consensuel bu 92 bi naan euh, Kéba Mbaye jiite woon ko. Mhm. boobu ba léegi dafa mel ni kujje gi mënuñoo déggoo seen biir. Mhm. loolu lan nga jàpp ni moo ko waral ak lan mooy saafara si mbir mbiram coowal élection ak processus électoral ñu réglé ko ci Sénégal. waaw xam nga euh, bu fekkee man damaa falu yow nga bëgg a falu toujours da ngay xool siis bu ma toog. nga bëgg cee toog am na ay saat yoo xam ni doxal na sama déggante yow mais bu fekkee da nga sant ba maanaam da nga xaw yàkkamti mën nga essayer di jalgati. Euh, beneen problème bi mooy lan opposition bépp opposition képp koo xam ne da nga créer sa parti politique. Mhm. lii sa li li ngay li ngay wut mooy accéder au pouvoir. Mhm. léegi nag yow man bu ñu bokkee opposition bi boo bëggee accéder au pouvoir ma bëgg accéder au pouvoir la plupart temps mu am consensus dafay jafe boo seetloo avant élection yi dafa am ay coalition yu large yoo xam ne problème opposition dañ ciy daje di ci waxtaan di ci jubu mais élection yi bu jubee rek ku nekk di gis sa bopp parce que ku nekk mu gën a jiite. kenn bëggul kenn sa morom jote la. loolu moo koy également ñi nga xam ne kii ñoom ñoo nekk au pouvoir fu mu nekk nii arrangé na leen pour que ku jigi nekk également épargne bi maanaam ñu. tasaaroo ñu tasaaroo que bu ñu booloo mën na am ñu am benn doole boo xam ne bi mën nañu yëngal seen i seen ñi nga xam ne ñoo nekk ci au donc mhm. arrangé na également ak le pouvoir. mais l'intérêt pays bi dans tout ça. intérêt bi wax naa ko démb ci benn plateau télévision moo que nit ñi def ndànk ñu xam ne nguur. sacerdoce la sacerdoce la mooy moo xam ne kii comme képp koo xam ne kii yow da ngaa ne jox leen ma réew mi pour ma saafara jàngoro yi jàngoro waa réew mi lu diis la. Mhm. lu diis la imagine toi yow ngay fayeeku ko de mois may fayeeku ko de mois gouvernement bi teq ci suñu li ñu am chaque fin jox ko ñi ñi ñi ñi ñi jiite réew mi béykat bi noonu mécanicien bi noonu. Mhm. ménagère bi noonu ñu jël lépp jox ko réew mi loolu mooy suñu budget su ko defee yow li nga li nga wax may jox leen ma réew mi xaalis boobu ngeen ngeen may jox ma doxalee ko ni ngeen ko buggi loolu dafa diis dugg ku nekk moo war a dugg ne jox leen ma réew mi ndax mbaam yëngal gaal non non non il faut que nit ki am possibilité ak expérience ak mandate bu doy. Mhm. boo xam ne ki euh, nit ñenoon nañ ko ci. peut-être euh, laaj bi ñu ngi ci laaj yu mujj yi mooy rek léegi bu bu fekkante ni dem nañ ba conseil constitutionnel dëggal li député yi voté démb. ñu mhm. dem voté ji est-ce que jàpp nga ni loolu aussi dina tax vote bi gaaw comme ni ko bëggee mën naa rek la solution quand même pléthore parti yi ci non amoo doon non man loolu sax benn benn benn benn saafara rek la benn saafara la amoon mon bi ce sa c'est pas ça la solution la solution am na ñu bari wax nañu ko euh, parce que même loolu boo ko defee fu mu nekk nii dañu naan comme ku nekk am na sañ-sañ bu la neexee wala bu la comprendre bu ma neexee ñëw daagu ci biir daagu sax laa wax daagu ñoo observé ñoo demaat de aller retour jël jël bii xob jël bale xob jël bële xob effectivement loolu ça va retarder les choses. Mhm. donc amoon mon avis nit ñi dañoo war a teey. Mhm. teey bi mooy lan man bu ma doon bu ma yàlla mayoon ndomba tànk boo xam ne bii am naa sañ-sañ pour wax damay wax ne bu jongante bi passé képp koo xam ne kii amoo 3 pour cent de l'électorat en tant que parti wala coalition dama lay neenal. bu la neexee nga dem langi feneen. ànd ak keneen mais parce que parti politique loolu la du ñu bu ñu bu la la parti politique. te pourtant pourtant ci conseil bi bi nga xamante ne mooy modernisation. parti politique yi mais gis nañ ba léegi application bi des na daanaka moom rek moom moo des sax ci application bi sinon 15 points yi yeneen yëpp appliqué nañ est que loolu aussi laajut manque de volonté politique ci parti yëpp muy ci nguur ci au pouvoir mais da gis ay gisin yoo xam ne dafa rafet da naan lii moo la doxal réew mais boo ñëwee au pouvoir nga am ay réalités yoo xam ne vraiment yaa ngay jàngat ak moom souvent da ngay changer dañu naan mais est kii moo nekkoon opposition. Mhm. parce que moom moom wax sànq. kon koo xam ne ki yow fi mu nekk yaa président de la République chef de parti majoritaire au pouvoir. lu lay arrangé surtout xam nga nu ñu nu ñu doxalee par exemple jongante yi dafa am scrutin majoritaire ak scrutin proportionnel scrutin majoritaire euh, mooy koo xam ne kii léegi bu ma la rawee même ñaari baat rek ma damay raw raw gàddu euh, léegi bu fekkee yow da nga nekk benn parti au man ma nekk opposition bu fekkee juróom juróom nit juróom nit lañu xam nga ku nekk par exemple maag yaa ku nekk bu ngeen jàmmarloo comme ça nga daanal ku nekk parce que yaa yaa nekk au pouvoir hmm. ñu booloo comprendre ma xayma ko par exemple boo jëlee cent personnes yoo xam ne ñoo war a voté. mu am par exemple cinq candidats cinq coalitions cinq coalitions sur les cent yow nga am quarante ñi ci des c'est deux soixante comprendre hmm. xam nga yaay raw gàddu yaay gàddu lépp hmm. mais loolu liste départementale yi voilà mais bu fekkoon ñooñu amoon nag 60 bu fekkoon léegi dañoo boole woon ñoom ñoo am 60 ñoom donc ça arrange le pouvoir en place hmm. que ñu émietter justement l'opposition que mu am ay coalition yu bëri bëri bëri voilà euh, laaj bu mujj bi rek mooy comme yaakaar yëpp ci conseil constitutionnel ban délai la ñoom sept sages yi ban délai la na am ngir joxe seen verdict voilà conseil constitutionnel bu ñu ko jëbalee loi bi il a six jours juróom benn fan juróom benn fan six jours voilà jours pour joxe son résultat léegi problème bi ci posé wu mooy lan normalement les élections législatives. campagne bi lundi lay démarrer. lundi lay démarrer voilà léegi bu ñu ko bu leen mayee 6 jours tey le vendredi normalement donc vendredi nga samedi dimanche lundi mardi mercredi ñu joxe seen seen verdict supposons que verdict bi ñu joxe ñu jox dëgg bi à kujje politique qu'est-ce qui kon dañuy maanaam ñëw jëfee li nga xamante ni moom mooy sept li 47 yëpp ñu voté. voilà kon est-ce que en ce moment problème bi du du parce que maintenant le le délai pour la campagne électorale c'est 21 jours. 21 mm-hmm. jours bi donc voilà. jërëjëf professeur Mamadou Alioune Diallo may fàttali ni moom mi ngi jàngale droit constitutionnel ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru rawatina faculté sciences juridiques ak politique moom ñu koy gën a xamee ci faculté de droit maa ngi lay gërëm professeur. jërëjëf maa ngi ñu dem ca bitim réew euh, wax rek euh, déguerpissement bi nemeeku tey ci suba ci ay migrants maanaam ay doxandeem yoo xamante ni ña nga woon ca Paris porte la chapelle ñoom nag euh, doon doon nekk ci ay diwaan boo xamante daal mooy dix-huitième arrondissement nan fa dëkkee woon nag tegul ci yoon ba tax na alkaat yi fekkoon leen ci jële leen ca ñoom nag am na ab doomu sénégalais bu ñuy wax Mamadou fekk baax ca Casamance moom mi ngi ci jafe-jafe sàkku ci kilifa yi ñu dimbali ko rek ngir mu mën a ñibbisi ci Sénégal lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki alkaati ñoo teewoon ca barab ba ñu ànd ceek suñ correspondant ca Paris Ibrahima Camara juróom benn waxtu ci suba jot ci Paris porte de la Chapelle lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki takk der fajaru leen ab opération de déguerpissement bu préfecture bu police bu Paris sumbu war fa jële lu toll ci ñaari junniy waxambaane ñu bàyyi ko Syrie Irak Afghanistan Libye Soudan Mali sax mbaa Sénégal secretaire général préfecture bu Paris di si àddu conséquence l'idée à travers ab opération la boo xam ni euh, dañu ko amal euh, ngir euh, fexe ba teg ñi nga xam ne ñooy migrants yi ngir yu gën a set yu yu méngoo ak nekkinu doomu aadama Euh, en termes de, de restauration, d'hébergement bien sûr. préfet de police Michel Delpech ndigal la bu jóge ci euh, préfet muy ab décret ngir ñu jëlee fi ñi nga xam ne ñooy migrants yi. depuis euh, plusieurs semaines. Amadou di ab ndaw bu bàyyi ko si bëj saalumu Sénégal ni yeneen i moromam bëggoon a tekki moo ko taxoon a tukki. fii kay sonn fi sonn sonn naa bi sonn bu métti wallaay fii aw ma kër aw dara aw ma chambre dara. damay nekk di di nelaw si mbedd yi waaw loolu kay. fi mu toll nii bëgg naa ñibbi Sénégal ba tax na muy woote wàllu wutu réew Sénégal la. damaa bëgg a ñibbi delluwaat sama sama dëkk waaw loolu laa bëgg nii waaw bëgg bëgg dimbale waaw su fekkee ay président yooyu wala euh, gouvernement Sénégal yi. mu dimbale ma waaw man tamit ma am dara ma delluwaat sama dëkk. ñaari junniy doxandeem yu porte de la chapelle ñoom ñu war leen a yëpp ci ay bus tasaare leen ci Île-de-France bi yëpp ñuy njott ne ndax loole dina mën a saafara mbir mi ni mel ndaxte semaine bu jot lu toll ci ñeenti téeméeri doxandem di ay migrants daanu duggu biir Paris. jërëjëf Ibrahima Camara xibaaru tàggat yaram yi démb nag ñoom waa génération foot nekk ca Déni Biram Ndaw ginnaaw bi ñu jëlee championnat Ligue bu Sénégal ñëw nañ fii ci makkaanu groupe Futurs Médias daal di rekk jébbal eh, li nga xamante ne moom mooy coupe bi Youssou nduur mi seen président doon rafetlu nan taxawaay ci kilifa gi taxaw ba club boobu rek di am ay ndam ak i tamit résultat yu am solo ñoom nee nañ daal ci base bi lan tàmbalee liggéey boobu ba tax tey ñu nekk ca bopp football bu Sénégal. ñu ànd ceeg Cheikh Sadibou Diarra Massaer Ndiaye commentaire bi di Saprera. ginnaaw ba mu jëlee championnat national 2017 équipe génération foot ñëw présenté coupe bi Youssou Ndour président d'honneur club bi. en 2015 on a été euh, vous rendre visite pour vous mm. présenter la Coupe du Sénégal. je pense 2015 ñëwoon nañ fi wan la Coupe du Sénégal 2017 ñu ñëwaat indi la trophée champion muy firndeel liggéey bu yàgg bu fayeeku euh, te muy ay euh, résultats yu ñu mérité ci gis-gisu Madi Touré euh, li mu bëggoon mooy amal équipe bu mag fii ci Sénégal te loolu am na liggéey moo ñu ko may te ku la xam gis ni liggéey rek moo la ñor ba tax nga nekk sunu référence. toujours rafetlu performance su équipe bi PCA groupe Futurs Médias gis ne académie bu nekk Denis Biram ndaw jël na beneen dimension teg si di ñaax équipe bi mu wëyal liggéey bi. su ma rakk ji nga xam ne que euh, maa ko tànnal sama bopp booba tuut la ànd ak moom gis bëgg-bëggam ak taxawam ma accompagner ko ci ñemewul def dara te waxuma ko. di nekk nag xale boo xamee ni que lépp loo xamee ni que cadre la pour créer ko pour nit ñi mën a évoluer loolu moo ko soxaloon ñu ànd ceeg moom ba yàlla def li alhamdulilah. ci loolu ma félicité joueurs yi ndax nag bu du woon ñoom ah xëy na mbir mi du yegg si fii wax naa ne football du rek nga dajeeg onze ngeen di football football dana yokk euh, teraanga. football dina yokk maxaama football dina la gën a wane football dina tax ñu gën a respecté kon nag bu ñu amee ndam yi ñoom la kon nag ñu ngi leen di félicité ak seen encadre kontaan naa te ma bëggoon ci terminer di wax ne que nag état bi la ñuy waxal parce que fii moom du ministre moo taxaw fii président d'honneur moo fi taxaw ñoo gagné championnat bi amul lam laam ku def lu rëy am lu rëy nañu gisante ak ñoom ñu waxtaan ñu encadré ñu pour que ñu yegg fu ñu jëm. ngir neexal joueur yi ci seen performance ak indi ak njàppalam si équipe bi jëm Coupe d'Afrique Youssou Ndour fas naa yéene defal leen benn concert ci semaine di ñëw. ki ci gënoon xarañ nag ci waa génération foot yooyu di Ibrahima ñaan nekkoon attaquant te FC Metz jënd ko moom nag demagul rejoindre club boobu di FC Metz ca Tugal wante daal nee am na yaakaar ni jaloor yi mu def fii ci Sénégal bu demee foofa ca France dana ko def te tamit loolu dina tax rek ñu woo ko ci équipe national bu football ñu déglu ko ci micro Cheikh Sadibou Diarra Maye Sayel Ndiaye. xam naa léegi rek du yàgg incha allah parce que sama visa laa doon xaar rek mu génn incha allah après ñu dem jéem a préparer hivernal yeeg yooyu noonu. ñu dem jéem a góorgóorlu rek liggéey euh, après luñ ci yàlla defal rek ñu ñu jël quoi. fi mu toll nii moom fixé wuñ dara mais bëgg nañ euh, dugal loo xamante ni si moo ëpp li nga xamante ni si moom lañ dugal fii quoi. liggéey rek euh, toog. di xaar bu ñu woowee tam aussi ñu ñëw bu ñu woowagul tam ñu continuer liggéey rek ba yàlla tudd ni dinañ ñu woo quoi pour man lu jot rek dina yomb incha bu jotee rek dinañ ñëw. équipe bi di waa FC Paradis ñoom demoon nañ ca tugal ngir amal fa ay jongante foofu nag am nañ fa taxawaay bu am solo ndax ci ñaar fukk ak ñeenti équipe ñoom ñoo jël fukk ak juróomeel bi jox na leen fa ab raaya nee nag loolu dana tax rek ñu gën a yokk seen expérience ci wàllu football Cheikh Sadibou Diarra Ibou Diouf ak Demba mbégte la ñu nemmeeku fi nga xamante ne rek mooy école de football FC Paradis des enfants de Guédiawaye loolee gannaaw seen participation tournoi international bi ñu jagleloon xale yi seen at yees fukki at ak juróom te Saint-Bar amaloon ko fële ca France ndax ci fukki équipe ak ñaar yu fa woon Sénégal moo jël fukkeelu place bi ak juróom. bi ci duggee am nañ ci ren six victoires am ci trois défaites am ci deux matchs nuls comme ni nga ko waxee terminé quinzième Euh, gagné tam challenge de précision bu nga xamante ni dañ ko doon xëccoo foofu noonu aussi ñu am ci trophée moom la ñu àndaale nii. da xam ne par rapport ak ñoom li yore il faut mu am différence parce que kii dëkk di fool ci gazon ak kii di fool ci suuf ba xëy di fool ci gazon mënuñoo bokk. fexe ba jongante club yi nga xamante rek ñoo fekk baax ci biti réew loolee dina may ndaw yi ñu gën a suqali seen xarañte ci wàllu football. ci laa nekkoon. naan ay affaire bi du yomb la damay dem jaar seen kaw jël tournoi bi mais yombeewul noonu bañ demee ba yegg danga xam ne ñii ay joueurs lañ comme ñun. yokk na ko trop kay parce que euh, yokk yokk na ma xam ni tamit football nekkul kii kese euh, yi ngay def fii kese vitesse si la bokk. waaye soo demee foofu di nga leen gis li nga xam ne ñu tool ay 14 yi mën nga sax gis koo xam ni. mën na la ñaar. ci seen participation bi ñu demoon France nag daanaka ma des nañu wax ne fukki joueur ak ñaar ñoo jotoon dem loolu nag ki ko waraloon mooy ñàkk doole ba tax na kilifa yi di ñaawlu li ni mel. mais c'est décevant ñu am 16 visa bàyyi yóbbu 12 joueurs wax dëgg yàlla lu may naqarlu la ba fi ma toll nii te dara waralu ko nag lu ñàkk jàppale bi nekk géejawaay moom tuma sera ñu jàpp bu ñee xale rek ñu ñàkkal ko fayda bu ñee xale rek ñu bàyyi ko ci biti lu tax askan bi ñoo jël xale yi ñu jàppale leen te xam ne ni xale yi ñooy avenir suba waaw boo bëggee defar réew da ngay defar tàggatuñu ay sportif ay nit la ñuy tàggat école de football bi paradis des enfants de Guédiawaye li ma bëgg mooy taxawu xale yi nga xam ne rek dañu tànn football ngir ñu mën ci fës loolu loolu tamit dina leen jàppale ba seen nekkin ci askan wi mu ci ayib.

mooy chef division pédagogique waa division investigation criminelle ak gendarme yi section recherche ñongo ci enquête ba ngir xam fan la inde bi flotté maanaam épreuve yi seen fan la seenne ak ko sennal ki ñëpp di liital fan yi yëpp di baabu jaaxam l'observateur gën nañoo xamale ak moom moom baabu jaaxam na mu doonee baykat ca suum nga mu fekk baax ba ni mu jiitee office du bac opposition bi raté nañu seen bac le quotidien moo xëy bind loolee ci xëtam ci bunt assemblée nationale sikki mi député yi wane seen bopp ba yëfi du jàll le na nañu daje woon nañu démb ci buntu assemblée nationale waaye ña fa daje woon mënees na leen a wàññi ndax néew gi ñu néew ay bennet bennet nit ñoo fa ne woon loi ba jàll na article l bi modifié nañu ko li leen dese nag ñoom opposition bi moo di dem ca kanamu conseil constitutionnel joytu ko ca kanamu juróom-ñaari juge ya fa nekk recours la ñuy def réew mi quotidien nañu waa opposition bi la ñu waxoon ko ne ko jéem waaye sottiwul dañ leen a ci assemblée nationale ci biir ak ci biti ndax loi jàll na ñu bëggoon taxaw ci buntu ma ne dafa amee yu métti saax-saaxaleen ba ñu xool benn place njiital groupe parlementaire Moustapha Diakhaté ak kàddu yi kengetloo yi mu yëkkati jëmee ci opposition bi mi ngi ci mu njëkk journal bi mu di tuut ngeen lool ci yëngal réew mi les économies opposition bi dañoo weere démb boole cee kit takk der yi làpp leen làpp na wàllam naka noonu it Déthié Fall vice président bu parti réew mi ne dugg ga mu bëggoon dugg ci assemblée nationale loolee la ko gaañi bañal les éco nañu du ñoom rek ñoo daj dëgg démb bu ne am na ñaari ndaw yoo xam ne ci parti Pape Diop di bokk gis-gis ca la bokk dañ leen a teg loxo galotal ñu wulli ko fa wulli yu mitti Omar Sarr Bassirou Kébé ak Déthié Fall dañ leen a saax-saaxee honorable député Abdou Mbow ak Moustapha Diakhaté yéen kaay bi nañu kaay nañu doole doxul jàmm majorité bi mu di ñu fare ci nguur gi ñoo wane seen bopp imposer yëf yi Sud Quotidien ne ko valider yëf yi mu di loi cinq bulletin léegi bésu wot ba bu ñu ci yeggee wootekat bi bu duggee ci bureau de vote ba soxlaatul muy gàddu ñeen fukki bulletin ak juróom-ñaar di gangar gangar moom war caa tànn benn gën koo néew mën naa tànn juróomi bulletin la si nañu mbir ma jàll na waaye dans la douleur ki amee douleuru xol ba wax ko mi ngi ko waxee ci la tribune mu di Abdoulaye Versailles ci la góor gi Abdoulaye Wade goxee lépp lu ko miti ci réew mi wax na ci Sénégal ak tolluwaay gi cour répression enrichissement illicite mbirum Karim Wade mbirum Khalifa Sall législatif yi mu bëgg a sóob moom Abdoulaye Wade ak Abdoulaye Wade ak li mu ne président Macky Sall def na ko loo xam ne du ko ko baal ba àddunay tukki lépp mi ngi ci page huit ak neuf bu journal La Tribune ma dem ci page onze bu l'Observateur waxtaane fa xew-xewu jamono bu xew waay boo xam ne moutarde ba daa yéeg mu jug di wuti jigéen juy jaay boppam ko ba gis ko nekk jigéen ja journal bi nañu nekk fexe ba jot boppam ci la jéppee ndaw si fitnaal ko duma ko gaañ ko dem yoonam te fayu ko ba yëf ya mu nga mujje ca yoon jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ñoo ngi leen di ñaanal àjjuma ay jàmm